Mesdames, Messieurs, chers invités, chers sympathisants, je voudrais, si vous me le permettez, exprimer mes sincères remerciements à mes invités qui ont effectué le déplacement pour participer à cette cérémonie d'investiture et célébrer avec la jeunesse sénégalaise une nouvelle vision de la politique et de l'engagement citoyen. Mes chers sympathisants, je vous retrouve avec plaisir dans cette belle salle du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Je tiens à remercier toute l'assistance. Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée. Elle m'honore autant qu'elle m'oblige. Je mesure la responsabilité qui m'est donnée et je tiens d'ores et déjà à vous rassurer que je mettrai toute mon énergie toute ma passion et tout mon engagement au service du Sénégal et des Sénégalais. Vous pouvez compter sur moi pour relever à vos côtés les nombreux défis qui nous attendent afin d'améliorer les conditions de vie de tous nos concitoyens. J'adresse à chacune et à chacun de vous, notamment les nouveaux membres et les sympathisants, un message de bienvenue. Mesdames, Messieurs, en ce jour si spécial, J'ai une pensée pieuse pour mon défunt père, feu El Hadj Amadou Yatassaï. Puisse le Seigneur l'accueillir dans son paradis céleste. J'en profite également pour rendre un vibrant hommage à ma tendre mère, Adja Mariam Sow. Grande dame sensible, tendre, généreuse et forte à la fois. Que le bon Dieu t'accorde une longue vie, chère mère. Je tiens aussi, bien évidemment, à remercier mes proches et tout particulièrement ma famille, mes tendres épouses et mes proches collaborateurs. Je sais tous les talents qui y travaillent avec passion, loyauté et sens du devoir. Je sais les efforts que vous avez consentis sans y réfléchir à deux fois les dans les moments difficiles que nous avons traversés depuis le début de cette belle aventure qui a bouleversé notre quotidien. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, j'ai une pensée émue pour tous nos jeunes qui ont perdu la vie dans les traversées des mers à la quête d'une vie meilleure. Plus d'une centaine de milliers de jeunes personnes, dont beaucoup ont quitté notre pays, voilà un autre symptôme de la situation complexe qui s'est créée. Je ressens leur départ comme une grande saignée Chacun parmi nous peut comprendre les larmes de beaucoup de mères et de pères. Nous avons subi bien des pertes humaines. Nous souffrirons encore longtemps de cette blessure. Mes chers sympathisants, au début de cette campagne, il me faut le premier à assumer la tendance de rassembler la jeunesse autour d'un programme et de venir développer ce programme devant tous les Sénégalais. Je le ferai avec sincérité et loyauté en évoquant successivement les principaux enjeux qui sont devant nous. Je serai ambitieux pour notre jeunesse qui représente l'avenir du Sénégal. Je continuerai à accompagner la réussite de nos jeunes et leur épanouissement en leur garantissant les conditions d'études optimales et en poursuivant la diffusion la plus large qu'il en soit du savoir sur l'ensemble de notre territoire. Loin d'être un simple slogan s'unir pour demain, est un appel à la mobilisation, à l'engagement et à l'action. Un appel pour un Sénégal plus sûr, préservé, solidaire, innovant et attractif. Un appel pour un Sénégal fier de son identité, de son histoire et ancré dans la modernité. J'appelle le monde agricole, j'appelle les intellectuels qualifiés et engagés les chercheurs, les écrivains, les artistes et tous les travailleurs culturels, les ingénieurs, les enseignants et les médecins. Plus que jamais, nous avons besoin de, votre expérience et de vos conseils qui ont donné une empreinte originale à notre pays. J'appelle tous les dirigeants et chefs d'entreprise. Priorité sera donnée à celles qui y travaillent, qui travaillent, investissent et recrutent chez nous. J'appelle les femmes qui sont les piliers indispensables dans la famille, la vie active et dans la société. Sans elles et sans leur travail, notre société ne voudrait pas que cette moitié. Nous avons besoin de vos talents et de vos aptitudes, de votre engagement admirable pour le bonheur des familles et du peuple. J'appelle les artisans, les commerçants. Ils fournissent un apport important à notre société Le Sénégal de demain leur garantit un avenir rassuré. J'appelle les soldats, les membres des organismes de protection et de sécurité. Je sais apprécier votre engagement sans faille dans la protection des biens et des personnes. J'appelle nos anciens combattants et les pionniers de la première heure. Ce sont eux qui ont posé la première pierre. Nous leur témoignons notre respect et notre reconnaissance éternelle. J'appelle les familles religieuses, les représentants de l'Église et tous les croyants de notre pays, le Sénégal a besoin de vous et souhaite votre coopération. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Enfin, j'appelle la jeunesse sénégalaise. Sa participation à l'édification de notre société est caractéristique de notre pays. Nous promettons d'aider la jeunesse de notre pays à réaliser de manière consciente le sens de leur vie dans notre société. La jeunesse veut et doit prendre une part active aux décisions qui concernent sa vie. Il faut qu'ils puissent mieux encore se réaliser. Elle a besoin de notre confiance et elle veut assumer ses responsabilités. Elle a besoin d'une attention plus grande de la part de toute la société, des parents, de l'école et des institutions. Mon investissement auprès de vous sera moral, intellectuel et pédagogique, car c'est un investissement pour l'avenir du pays. J'appelle tout le monde à participer au travail, à la planification et au redressement de notre pays. Je suis convaincu qu'avec l'aide des hommes et des femmes de bonne volonté, et surtout des jeunes, conformément à l'esprit à l'esprit et à la du mouvement S'unir pour demain, et aussi à l'idée que je me fais de ma mission l'avenir sera radieux. Alors, vous avez dit s'unir pour demain. C'est un grand pour être candidat lors des élections présidentielles du 24 février 2024. Oui pour porter votre voix. pour mener la lutte ensemble. Oui pour gagner ensemble. Chers sympathisants, chers camarades, je suis fier d'avoir à mes côtés des jeunes engagés qui ont joué leurs et qui en ont fait une richesse. Leur diversité incarne le visage de notre beau pays que je veux rassembler autour d'un grand dessein, celui de faire du Sénégal l'un des pays les plus entreprenants et les plus beaux à vivre. Chers sympathisants, chers camarades, unissons-nous pour aujourd'hui, unissons-nous pour demain. Vive la jeunesse, vive le Sénégal. Eh, maa ngi wax ak ndaw ñi ñuy déggu à travers le Sénégal ak feneen fu ndaw nekk tey sénégalais tey dafa nekk bés bu spécial ngeen may ma ma sant sama waajur bu jigéen bu baax a baax ñaana ko fan wu gudd wér gu yaram sant sama soxna sama sama soxna yi sama njaboot sant sama équipe bi ma àndal di liggéey benn message rek laa amoon pour jox ko xale yi. ñun jeunes sénégalaise amuñu woon problème ak benn président de la république Macky Sall moo fi toog troisième mandat la ñu amaloon problème ak moom nee na defatu ko kon ñu ngi koy ñaanal mu dem si jàmm ak salaam mais Macky Sall du ñu tàndal candidat parce que Macky su indee candidat mu ne nañ ko voter ça veut que troisième mandat boo bëgg a ñu voter ba tey donc refuser ça. dama ne dama ne je m'adresse à la jeunesse man man man man war naa doy ku nekk exemple man bi bibliothèque laa je suis parti de rien je répète ce que j'ai dit je suis parti de rien tey Sénégal su may wax dañ may déggu su ma jaaree dinañ xam ne man maa jaar xam nga lan moo ma may fulla fayda ak jom gëm sama bopp gëm sama liggéey en tout cas Sénégal mi ngi toll à la croisée des chemins may ñaan ngir yàlla ak yonent bi ngir yàlla ak yonent bi may ñaan xaley Sénégal muy ñi ne fii ñu bëgg a dem ñu jot a dem ak ñi nekk ci diaspora bi non à une continuité non à la continuité non non et non damane changement changement à la cour al foog mu am Sénégal xale bu fi juddu woon am vingt quatre ans tey Abdoulaye Wade def na douze ans le président Macky Sall vient de faire douze ans ça fait vingt quatre ans xale bu fi juddu woon tey war nga am jabar jigéen bu fi juddu woon tey war nga am jëkkër ba am doom lan moo changé Sénégal lan moo fi changé des fois su tabaski jotee wala korite jot wala weeru koor jot damay toog ak sama njaboot ñi ngi may dégg man duma wax lu ma gëmul ñi fi toog ñëpp samay nawle lañ ñi may seetaan samay nawle lañ man def lu baax laa xam mais des fois damay toog ba mu yàgg ma ne est-ce que est-ce que Sénégal la ñu nekk parce que ñëpp mënuñoo am problème surtout cette jeunesse sénégalaise bi xale yi amuñu xëy amuñu gont man man ni may amee sac ni may amee sac di seeti sama yaay di dem di toog ci wetam di naan attaaye parce que daf may wóor na su ma eggee faj soxlaam mais xale bu sa yaay jox ndékki xale bu yeewu sa yaay jox la ndékki wala sa papa jox la ndékki pendant vingt quatre ans lan nga réussir dooley xale ndaw la taaru jigéen ndaw la respectez-vous commencé leen ko ci man ku leen woo pour fay leen pour ngeen ñëw tàcc ko bañ leen seen carte yéen a ko moom seen carte yéen a ko moom seeni kart yéen a ko moom yéen yéenay fale seeni morom ñu ngi naree di jël ay gaal di dem Nicaragua di dem feneen ak feneen yéen bu leen dugg ci détay boobu te ngeen fexe li fi jotoon am jeex fi te pour mu jeex fi lenn dong la mooy changement dama ne ngir yàlla ak jëmmi Seydina Mohamed ay waay nañ ñu dimbale bu politicien toogaat sunu dëkk bii ñun ñun ñu ngi judd après indépendance bi ñu juddoo dem jàngi école dañu jàngal hymne national du Sénégal tey suma ma question bi ma ne ku ma mën a jox titre hymne national du Sénégal jàpp naa ñu bëri duñ ma ko jox de soo amee kenn ku xam titre hymne national du Sénégal na ma ko wax donc ngir yàlla ak yonent bi hymne national du Sénégal titre bi le lion rouge la tudd c'est très grave donc xam nga ne éducation amul Sénégal xëy amul Sénégal waa dëkk boobu nu muy développé amuñu baykat ñett weer la ñuy bay ñetti weer li ñu bay ñun mënuñu ko dundee ñu ne am nañ pétrole am nañ gaz am nañ zircon am nañ leneen ak suñu dëkk bi il faut mu am ay industrie ñu commencé ko ci pétrole bi ñuy wax ak gaz bi ñu fexe industrie yi fi nekk war koo traité ñu traité ko fii xale Sénégal mën see liggéey fii ñu am ay baykat am nañ suuf am nañ ndox am nañ géej am nañ lépp mais pourquoi on est pauvre donc sama dernière mot mooy man en tout lance un mot d'ordre à la jeunesse sénégalaise ay waay ngala bu ñu ratee tournant 2024 ma ne tout sauf un politicien tout sauf un politicien jërë ngeen jëf en tout cas merci du fond du cœur yéen ñi def déplacement bi yëpp maa ngi leen di ñaanal di sàkku seen ñaan jërë ngeen jëf merci beaucoup